Serigne Saliou saa su xëyee nit ñi di ko gën a bëgg di ko gën a xool te kenn campagne bi ci kenn waxu leen ci lu tax ñu di ko gën a bëgg waaye kenn ku ci ne yaa amal sa bopp sa ak yëgeeg sa liggéey moom sa liggéey moom ba saa su xëyee nit ñi di ko gën a bëgg di ko gën a sopp loolu nag bëgg gi mu bëgg Serigne Touba jël léppam def ko si mbirum Serigne Touba moo tax Serigne Touba fépp li mu ko fayee te li ciy firnde it mooy barab bi ñu topp. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko nattoon yëkkati ko jox ko. waaye ci biir nekkul suñu Saliou mboolem lu natt ci biir Touba rek li mu pàkk yi di bari bari nga xam ne ay téeméeri junni parcelle la waaye lépp turu suñ Touba da cee def ko addi suñ Touba. doy na ci itam titre foncier bu Touba ndax xam ne titre foncier bi ñëpp xam nañ da doon si. mooy gàllankoor yi amoon ci jumaay Tuubaa mëni su ko ñàkk def waaye ba atum 2000 titre foncier bi ëppatoon 400 mètres ay kilomètres mutu mutu ko woon te loolu ñu bëri xamuñ ko ci nekku suñ seel xalaatam ak doogu gam boo président bi fi jëkkoon nekk ci moom te sottiwut waaye doogam ak yéen jëm ci amoon moo tax ci firi saar war yëpp ci sir mooy lépp loo xam ne nuur na mbiru àdduna wala lu koy nuur rek mu jë mu jël ko dindi ko ci biti te yàqu dara ci doxinu yoon wi xam naa nag mel waxtu jege na te nit ñi yàkkamte nañ xam naa damay jeexale foofa wax ji rek Tuubaa gépp loolu